masawa isdaalaki rijaal Malik dafa wax ni hmm. bokk na ci ni ngay waajal sa doom hmm. bokk na ci bul ko tere bàkkaar hmm. bul ko tere bàkkaar boo ko ko teree foog xel ma liggéey yàlla ba mu nammee génne aadama aljanna daf ko tere garab ga wala taqraba hadihi shajara tudd ga mu tudd garab ga mu dañ ko kumpa booba namm na koo génne waaw moo tax mu ni sa doom Hajji ni bu ko teree bàkkaar da da da da da koy tënk ci programme boo xam ni du ko tal waaw hmm? gis nga foofu la ñu seex tënk radiyallahu taala anhu gis nga kurus gii mu la jox boo jëlee wert bi est-ce que seetlu nga li la seex jox lii du alif waaw ah. Hmm? ñaari doggi fanweer yii hmm. bii du laam bii du laam laam trente la waaw ce que xam nga li nga yor tey ngeen xam ne li Ablaye Mbaye wax maarifa de ah ah est-ce que xam nga li la Cheikh jox dama ne bu jëkk bi mooy alif gaa ngi nii hmm. laam-laam mooy ñaari dogg fanweer yi haa gi ñëw di allahu mhm. moom na la cheikh jox teg la ci ban yoon walla boog wax loola lan mhm. nga indi alif gi mooy bii mhm. laam-laam juróomi seede yi benn ñaar ñett ñeent juróom mooy haa haa juróom la nga bu fekk see quarante yi allahuma ngoog waaw nga di ci liggéey lan astaghfirullah lazim lan la ñaata astaghfirullah nga koy wax ñaata yoon salaatul fatiha ñaata yoon laa ilaha illallah ñaata yoon du 300 mhm. mooy radiya boo seetee ra ak daad ak yaa 300 la lay jox. baat ak yaa. muy radiya moo tax bay atu ridwaan ba du mën a ñàkk boo koy jël. boobu buntu la la biir fii bay jaare fa ngay jaare waaw ko ta shajar fi saxaaba yi di jaar fa ngay jaar parce que baabu salaam fa la yonente jaare mm-hmm. moo tax yonentu boo tudd ne alayhi saxaaba yonent bi koo ci tudd ni radiyallahu taala anhu bay atu ridwaan boobu ngay def boo jël tarixa bi foofu la la cheikh di teg fa ngay jaare yow it taalibe miin nga yoon wi de ah hmm? seetlu nañu fi ñu cheikh jox ak la ñu cheikh di defloo ba noppi nag kole ñu bi mënuñoo tàggoog yonent bi ci nan astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa alqayum ñaata yoon la fanweer fanweer salaatul fatiha ñaata yoon juróom fukk cinquante plus trente hmm? quatre-vingt quatre-vingt jëlal laa ilaha illallah bi ndax yaa nga taxadara ba hmm. indi 80 yooyu boo ko boolee 12 jawharatul kamal yi mu jox la lan 80 muy Muhammadu doo tàggoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam xoole fi mu la ko lay yonent bi est-ce xam nañu lu ñu am. Hmm? est-ce que seetlu nañu lu ñu am. Hmm? am nen ci ñun la di xaymaam. moo di alfu wali ca gaaña doon yey kamal min xayri tijaan hmm. ah, kon ab nen bu dee wecc junni law la yaawu kamal. moo kon nu nuy xamee xayma cuuju tiijaan mu ni moo tax bu saa taxawee ba suñ jaloore ya feeñ ñuy sàmmandaayu ay yoneen ñun gaay yu tiijaan <laughs> aktaab ya sex seeni baaraam ponkal ya réccu ngir di ñu ñee te daan bu doon tey ñu soobu yoonu tiijaan waaw waa kër Cheikh bu ñu nee tëll yamal xiyaamati dangay ngay ni ay yonent lañu dangay defe ni ay yonent ñooy groupe di ñëw moo tax ca woy yu yàgg ya ñu daan woy yow mal xiyaam bu ñu yëgsee rasool taxaw dañu sargal bay du kuréel ba ca nee yoon jañax ñu dem wute arsh nga gis kuréel cu eskay bu doon ni tey ba ma bay mi nuy fajal ban te nu gëm talaa ku ci mbay martaba Chérif bala yor ku woy mag ñaa ko doon woy ndeysaan hmm? mag ñee baax hmm? yomal xiyaam bu ñu yëg si rasool taxaw di ñu sargal rasool a ñëw bàyyi faatu ñëw di ñu sargal rasool taxaw bàyyu faatu ñëw di ñu sargal rasool taxaw cheikh dog kuréel ba ca ndeyjoor dogaat kuréel ba ca càmmoñ jañax ñu dem wute arsh nga gis ku réccu ni ëskëy bu doon ni tey ba ma gëm li may fajal ba mu la <laughs> ah <laughs> <laughs> ah. buntu mbax yu fa ñoom de. noonu lay demee de. noonu sëñ Hadj Tëdd Fure. Cheikh Tidiane Chérif du moroom martabam beneen du ni day atemi yu wax na ni moom martabam ba seenu ko. chaadali yu ak kërëfi ak ak sabat ak Fudayl kulluhum seeni xel xalaatu ko. yaay yaay. Hmm? sëñ Hady ah ponkal moomu. Hmm. tabaarakalaa sunu xaaliqina dem waajal ay ponkal bafi jamono bu ne ba ba at miy tukki ay ponkalam rekk fii jaar di teg tànk ñépp na mu tege woon tànk ñépp la Cheikh Gassama way rek ponkal la way rek min azal ba guf tabawal koo fi naw ci cheikh la di duy loo si gaañe ñépp la cheikh te dëggoom ku bañ du ni xuy <laughs> ku bañ fay. bañ fay de. benn warante ne wuti. ku newul ah. min azal ba buftadi wal koo fi naw ci cheikh la di duy loo ci gaaña ñépp la cheikh teg dëggoom ku bañ du ni xuy kon jaayante ku mel ni ki cheikh dellu li lay ndeyu ay waaju génn yoon wi la tey dañ ko génn du lu tey waa ju yoon wi la dañ ko génne dul dafa fiir jeeg bu jeeg waa ju yoon wi la tey dañ ko génne dul lu mu tey kër gi kat borom dafa fiir jeeg bu jeeg kiwul du fi sëy kon xaw su yaa di yow ki nu doy bul nu xool di yaay sunu ndey noo la gëm te doy lu ci yow lépp neex na ñun du fay lu fay maa ñu ngi ci moom rek barzaqul barazix taajul aarifina sultaanul awliya ma tëje ko mm-hmm. ndeysaan imaam Mouhamed Lamine Diop sunu imaamu ratib bi yàlla na ko yàlla dolli wér. waxoon na sax dina ñëw de. ndeysaan bu ñëwul rek ngànt mm-hmm. mm-hmm. am bés ñuy waxtaan mu dima nettali ka nekkoon ca masjidu rasul di boroom xam-xam bu mag moo kooku moo bind téere bi ñuy wax minhajul muslim mm-hmm. kooku boroom xam-xam mm-hmm. téere boobu ñu wax minhajul muslim mm-hmm. góor googu ko bind mooy aboubacar aljazair mu ngoog mu doon bañ a jaar ci tur bi nax boroom xam-xam la waaw mm-hmm. ca masjidul rasul bu fay jàngale am ñu ko laaj ni ko ci wàllu tariqa cheikh bii nekk ko ndax loolu ñuy def ñoom ndax may nañu def ko fii ci biir masjidul rasul la ma metti mooy la mu ko dendaleel mu ne ma mayewuñ ko ndax ñu moo ñoo ñuy de def géew di di di di di di fecc ka way ka caaxaan rek ñoo yem mm-hmm. ci boroom xam-xam bu toll mm-hmm. gis nga loolu ma ci dégg mm-hmm. waxuma ay waxu nii de loola feebar ma xam naa ko Chérif waaw kay jërëjëf Chérif ma ma tëdd ko feebar laa la wax ma feebaru ko mu feebar ma jàpp ma ay fan ndax wax ji daf ma metti yàlla dogal taalibe Chérif bi sama soxna comme borom seetlu mu ne ma yow daal ba nga ma nettalee loolu la kooka wax ba tey gis naa ni danga mel ni ku feebar léegi nag di nga wér de ma ne ko ci nan ma ne ko tigi man looloo ma feebar mu ni ma dafa am xaalis ma fi dencoon maa ko moom léegi da ngay ñëw ma jox la ko nga dem fees ziyaara ji cheikh ndax nga wér <laughs> du dëgg cheikh Kouta kon nag mu ngoog ma ne ko ah dafa ni day wax noonu mu génn xaalis ba jigéen a ma demal nga ziyaar cheikh ndax nga wér. yàlla may ko moom it bi bi bi gën a yomb ba pare aussi nga dem godd lu doon ay jàllaabe ki parfum bépp ñëw continuer sa liggéey <laughs> jox ma ca sax man tabarkal ma ni bala maa dem de dinaa dem ci buntam tàggu ko ma dem ci Baye Omar ni wax ko waxal ma ko sëriñ bi sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh a ngi fi du yàlla tam ni ko nag dama bëgg mu defal ma recommandation ak turandoom nga wax ko noonu bàyyi ma ne ko waxee ko ko noonu te na ma may ndigal ci su ma demee ba ci raw du turandoom mu may ma ndigal ma jàng fa fa ilayka yabna muhammadin naadaani fiyamun tuxaqiqu jawharal insaan baa mar na dinaa ko ko wax te ëllëg sama jaar mu ne ma neen am nga ndigal demal te ñëw ak jàmm loola nga ñaan ndigal may na la ci ndigal li ma gëmloo ni defal na ma recommandation ak Cheikh ba ñu waree dem fa ñuy jaayi bii Air Maroc ba ca place la ne Panos Royal Air Maroc maa mhm. pàppa yi ku baax kii ñoo àndoon xaaji Habib Seck mhm. bés bi ñuy jënd ji billet xabit ni ma nan dem jënd billet yi fekk mi ngi war a ànd ak yaayam Marietou ak moom ak man ñu dem Royal Air Maroc di jënd billet yi bés boobu ñu ne yee yéen de chance ngeen am ndax da fekk promotion am ba dañoo wàññi billet yi <laughs> yàlla dogal ñu jënd suñu billet ba ñu demee Habib am na fa wóllëreem ndeysaan bu ñu doon wax larachi defe naa ma nga fa ba tey mm-hmm. waaw ku yàlla mën a gan foofa la oto bi ñu jël ci aéroport larachi moo ko jox Habib moo nu jël ci aéroport ba yóbbu ñu fa ñuy wax ulfa mm-hmm. ulfa googa la ñu wàccoon ca Kaasa ca ëllëg sa ñu dem seete larachi ma ànd ak Habib mu recevoir ñu ci anam gu yéeme ñu ni ko dañu bëggoon sax xëy dem Fès ziyaara ji Cheikh radiyallahu taala anhu mu ne ah malheureusement sama oto yépp dem nañu nekkoon maa leen jox oto bu leen yóbbu indi leen mais. na ngeen voyager train bi mais première classe maay fay paas ñëw na de ma ànd ak Habib ak Marietou ñu voyager première classe ba ñu àggee fekk booba jamono ci la aji kan hospitalisé foofa mhm. bu bu xaaji ibnu ma téléphone aji ni ko maa ngi Kaasa maak Habib ñu ngi fi ñu wax Ulfa ëllëg lañu fa fas yéene dem Fès mu ni ma Fès na jamono yi tàng na lool léegi dangeen di bàyyi ñaata ngeen ma ne ko man la ak Habib ak soxnaam ak Adja. wax nga dëgg gis nga allahu akbar nee na booba ma doomu Habib nee na booba wax nga dëgg wax nañ ci téléphone waaw góore waay sëkk mu ni da di bàyyi hôtel ba ñuy wax Tombouctou mhm. Tombouctou booy dem ci rawdu barzaqul barazir mhm. am na hôtel booy romb bu nekk à bu mag la te rafet mu ni ma xaaral ma utal leen fa ndax ka ko moom sama wóllëre la ma wax ko mu wàññil leen léegi ñaata ngeen ma wax ko ma ne ko léegi maak Habib mën nañu bokk nekk Mareetu ak Adja mën nañu bokk nekk mu ne ma kon xaaral dinaa ko wax mu wàññil leen prix bi ndax fees dafa tànk bu ko defee foofu moom dina baax ci yéen ndax hôtel bu tabaarakallaahu la mais xaar leen ba ma woo leen ngeen soog a départ ba yàgg ba mu ñu woowee nag ni ma ah léegi Habib am na néegu boppam hmm. wàññil nañ ko bu baax nag Marietu ak doomam ñoom daañu bokk néeg yooyu yëpp wàññi na ko mu ne ma may yow jox na la suite <laughs> te doo fay dara kenn mësul gis loolu jox na la suite te doo fay dara gis nga bi ma amee woon saal ba ah. moo nekkoon fa ñu daan jullee sunuy julli naa fii la yéeg di fa waxtaan bu Habib ñëwee ñu bokk toog waxtaan fa tabaarakallah sunul noonu borom otel ba téléphone ci otel ba ni bu ëllëgee bu ñu jógee jumaa bu ñu fay suñu añ añ bi daf ñu ko may ba ñu demee war a ziar Cheikh ca rawdu ba radiyallahu taala ca zaawiya ba ma duggee juste à gauche maa ngi yem ci benn sëtam mu ngi yor doomam bu ndaw ci wetam ñu toog ma jubal fa rek nuyu ko laaj ko turam mu ne ma Cheikh Ahmed Tijani laa tudd kooku laa njëkk a nuyoon ma ne ko Cheikh Ahmed Tijani ca Dakar moo ma defal recommandation ci sa maam ma ñëw yem ci yow mu laaj ma ni ma ban Cheikh Ahmed Tidiane ma wax ko mu ne ma man kooku nooy def ba ma gis ko. ñëpp ko bëggoon waxtaan ci sëñ Cheikh. ma ne ko bés boo ñëwee dinaa la boole Xaaji Malick si sa jingle incha allah bu ko doxee dina am mu yomb waaye mañet ndax dooma may ndax daf ma mayoon ndigal ci saraw du maam ma jàng fa lu mu ko wayoon ndax dooma may ndigal nga yëbb ma ci saraw du maam mu jóg Mhm. ma nan dem ñu dem ba ci rawdu ba mhm. mu ne ma fii la tëdd mu ne ma bopp ngi nii mhm. ma toog mu toog ma jël way ba wal xaqu annaka xad ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani wal asaasu lima tara min nicmatin ammat bisaatal ardi bil faydaani famdud yadan minha ilaya tafaddulan wardud biha wajdan bila xusbaani maa baalu mislika bil ibaa'i waxad gada yadhu bi adnaa juudika thaqalaani fa dahruka laa tuqaarabu sultatan wal fatxu fatxuka kiffatay miizaani فتقلبا فيما تشاء وتصرفا من عالم الأرواح والأبدان بل وزعا هذه الأجور تكرما بين الرجال وعم بالتجان هذا رسول الله يوم نزوله mu tax xeeti sëti cheikh yoon fële ñu ngi koy dégg dañoo mujj ñëw amoon ñu jóge woon Mauritanie doon ziar si dematuñu ñu di ma déglu foofa fees ba way wa jeex dama dama xamatul tur bi xaw ma Seydou Zoubayrou la def xaw ma mhm. ci sëtu cheikh yi la mhm. mu ne ma ndax doo fi mën a bàyyi wooy bi ma ne ko ah kay mhm. ndax mokkal naa ko bàyyi fooy neen tuuti ma séen palaat bu rëy ñu def ci gâteau indi ak baraadu bu rëy <laughs> ma xam ni recommandation ba ma ko waxoon dugg na defal na ma ko ci Mawlana Cheikh turandam Abul Abbas radiyallahu taala anhu hmm. est-ce que Serigne waaw ñëw am lu mu la jox mii ko indi woon hmm. Sidi Jamal hmm. mu jóge ba Fès Chérif indi ko amoo six ca kër ga ñu añandoo julleendoo juma waaw man nii juma fasante ko lëre yi shérif mi moo ko indi woon fa sunu xaaliqin yooyu xawaadisul <laughs> xayr waaw laa tunsa walaw baudat <laughs> am déet xawaadisul ah, xayr laa tunsa walaw baudat mm-hmm. am na loo xam ne kenn mënu koo fàtte mm-hmm. mukk du dëgg mm-hmm. te yooyu ci la bokk gis nga le 31 bii nga ñu defal fii ci diggante amoo 4 5 6 foofu la dugg yaa sagal littoral bi sa tànt bi fi tànt bi fii tàlli at mu jot mm. tànt bu ñu toll mosu fee tàlli bu dul ni yaa ko tàntaat wallaay ba noppi jox lépp yonent bi may wax ni ba noppi am lu jafe mm-hmm. Cheikh Al Hadj Omar ñëw toog te mooy Thierno Bachir waaw gis nga dugginu Thierno Bachir ci tànt bi ku ko fekk ku ko fekkewul lu rëy raw na la àddina ak àllaaxira kay raw na ah, otom boobu yaram ndànk di ñëw hmm, wallaay jar na lu ne ah ñu lemmar ci toogukaay boobu muy toog mu ñëw toog ak tekkam jeeg deggam jooju fa tabarakallahu ku ne mu xool hmm. gis nga loolu ku ko raté. yii fu ñu ameetul lu <laughs> ko amati mukk. xëj na na Idrissa xam fu ñuy ameetul lu mel noonu ku ko raté. ah <laughs> ku raté lu mel noonu. Eh, foo koy ameeti. yombul de. Hmm. Hmm. ku ne mu xool la. Hmm. Eh, eh, ah déplacement rek. jar na lu ne. Hmm? mais loolu ku ko rate fooy ameetu lu mel fan kon nag nañu bàyyi xel bés bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam xadara bii nag ñu ñu ñu ma dàkkantale ah, waaw te ilaa ilal abad yaa ko moom Chérif sëñ Cheikh nee hmm. Ahmed Tidiane si almaktum radiyallahu taala dégguma tubaab de waaye dama ko ni hmm. mooy celui qui se fatigue n'importe où il se trouve pour le bonheur et la prospérité de l'homme celui qui ne garde aucune haine pour l'homme ni mépris aucun pour le pauvre hmm? ah Cheikh Tidiane son courage hmm. son intelligence et sa culture qui ne seront jamais oblitérés digne héritier de son illustre homonyme le grand Aboul Abbas radiyallahu taala anhu muy l'éminent Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum docteur honoris causa de l'université islamique universelle et Cheikh Tidiane. Hmm. Cheikh Tidiane almaktum dama naan rek almaktum huwa almaktum rek hmm. moo tax di ngay wax sa jo sa jo jógin bi nga sol nga ma ni waay wéer wéer bàyyi Omar Samb yàlla na ko yàlla leer hmm. nee na dama toog ak moom ci kaasam boobu ñuy féexlu mi ngi sol jógin ak képpi naa la na mi ngi toog ci chaise yooyu nga xam ni day wëndeelu nee na ma di ko tooñ nag waaw sëriñ bi mbaa xale yi duñ la roy ci yii parce que ku ñëw du la xàmme mbaa duñ la ci roy sa sën képpi yeeg sa jógin yi nga sol mu ne ko man nee na ñun ñaar rekk de baa ma dama ko nettali yàlla na yàlla dooleel mu ne ko man Omar du xalifa aada de du xalifa aada de ne la tey ci képp gi ni gis nga fu ma yéeg yéeg fa sama njaboot daal di wëndaloog chaise bi hmm. man romb naa ko buntu këram gi ci màng yi hmm. ma romb ko fa buntu këram gi jano école mang yi. bu ndaw. waaw support bu su su ma xamul woon seen cheikh dinaa ko romb ni du moom. Mhm. ndax keroog mi ngi sol joogin ba noppi jël saag bu rëy wékku ko ne ci mbagg mi. yor caabeem di ubbi buntu këram. bi mhm. ci fi janook màngee falaa ko fekk nuyu ko. loolu dal na ma ci moom. la ilaha hmm. bi ma dalaat ci moom xamoon nga butigu ah, Georges Nahas. bi nekk euh, Ponti. Ponti mu ngoog. Serigne Cheikh ñetti ñetti ñetti barab la daan solo. Raoul Dobri. bi nekkoon Maginot. Georges Nahas. bi nekkoon Ponti. ak Zarka di gentleman ba nekkoon Vincent. foofu la daan jëlee ay costume am ya mu daan sol. waaw. maa xam butik yooyu. am bés. ñu toog vingt rue Vincent mu jékki-jékki rek taxi bi romb. Kabir ni ma eh sëñ a nga ne man ne ko fan mu ne ma nga ne le moom la moo romb fii léegi. man mu ni ma moo fi romb léegi mm-hmm. ma ne xaaral ma doxantu ba jàdd boutique Georges Naas wuti place de l'Indépendance ah. ma geesu boutique bi seen ko mi ngi taxaw croiser loxo yi nii wéeru ci comptoir bi janoog mbedd mm-hmm. <coughs> mi ngi sol costume bu rafet baay bleu marine la ma romb ko ba yàgg ma ne parce que dama ragaloon a dugg waaw ba yàgg ma wàññeeku di forcé dugg ma fekk ci position bi rek mu taxaw mu séen mi rek tàllal ma loxo yi ree na def maa ngi fa ana sa papa ma nga fa jàmm sant ma ne ko man fan yëpp sax maa ngi la gis ma ne ah da jël sama numéro téléphone jël ko ma daal di àbb kayit foofu ak bindukaay ma teg ci comptoir bi nii di bind mu mu mu doxam doxama ginnaaw xool di di xool nii sama mbind sama loxo commencé lox <laughs> waaye teewul dal bind naa ko ma lem ko nag def ko sans poche mun ma boo jógee rek nga woo ma incha allahu taala ma fixé le rendez ma ne ko comme ma ne ko bu ma demee ci su ma yeggee rek dinaa dinaa la woo ci fan yi mais ok ji ma wax. te séntu ma koon ci moom. mu ne ma ok ok jooju daal tax na xamatuma fu ma roof kii. nga man ku ma envoyé message ok merci kon <laughs> dégg est-ce xam nga Ahmed si boobu nekk nekk ak sëñ Abdoul Aziz Al Amin. jarbaat la ci Kabir seen mbokk. Ahmed te te te Ahmed. Mm-hmm. Ahmed ni ma man li ma dal ci moom moo gën a doy wax dama ànd ak sëñ Abdou jóge Tiwaawan ci ñëw ci këram gi ci Lamine Gueye. Mm-hmm. fekk ñu gàmmu nii ba gàmmu nga jeex këram googu làng ak zawiye bi ca Lamine Gueye. waaw waaw si kaw nee na ñu teg samay bagage yi rek ma génn ne naa doxantu nee na bi may ñëwee ba ci place kii ci cathédrale. kuuru cathédrale bi mm-hmm. nee na maa ngi seen ku toog ci banc yi mi ngi sol trois quarts mm-hmm. ak chapeau yore journalam di liir jël benn kaar wér ko nii ci wetam nee na kawar gi fii daal ci ci ginnaaw moo ma xamal ni kii Serigne Cheikh <laughs> nee na mu ngi mu ngi toog ci jardin cathédrale bi de ak trois quarts ak chapeau am wéer kaanam ci wetam di lire journalam nee na ma taxaw di ko xool ba yàgg nee na ma wëri janook moom nee na taxaw di ko xool di ko xool di ko xool ba yàgg mu wàcce journal bi nee na xool ma ni ma nii <laughs> nee na ma ñëw mu ne ma noo def ba xàmmee ma ma ne ko sëñ bi yaa ma yar man koy noo mën a mel ma xam ne moom kon toggal ci suma yàggale bi def waaye bul geesu toogal nee na ma toog muy jàng jàng jàng jàng jàng ba yàgg mu ne ma xam nga lan la ma ne ma ne kaa mu ne ma je veux vivre ma liberté nee di jàngaat li <laughs> journal <laughs> nee jàng journal am ba noppi lemaat ko bu jekk nee na jël saat bi ubbi ko def ci journal bi jël kaanam ni ma nag bul gestu de nan dem ci tali bi damay arrêté taxi nee na ma ànd ak moom ndànk ba ci tali bi taxi romb na nag mu tàllal ko kaan bi taxi bi taxaw mu dugg ci ginnaaw ni ma ana sëñ Abdou ma ne ko ñoo ànd mi ngi fii ci këram mu ni ma nag ma ko nuyul te mu ëllëgee dix nga fekk ma rëbbe naa la booleeg maam Maodo nee na tëj bunt bi toog ci ginnaaw taxi bi départ mu ni ma nii baaraam bi loo na ma wàññeeku ñi sëñ Abdou gis naa sëñ Cheikh mu ne ma yow yaa ñi ma yàlla foofa gis <laughs> nee ñu ciy werante man ko man gis naa Serigne Cheikh fii ci cathédrale bi laa gis nee na sëñ Abdou ma yow danga nga ñeme yàlla trop ah foo gis sëñ Cheikh nee na mu ne ma ma ne ko sax suba sax nee na ma 10 heures naa ko fekk relais bu subaa di ci xam dara nee na suba fa la ma 9 heures fekk 10 heures pile maam Maodo ñëw Ahmed na nga def kay góor gi moo ma boole ak yow nee na ma dugg ci biir mu lem cinq millions ne ma nee na nga jënd ci sëriñ ci te nga nuyu ko sëñ Abdou nee na dama ñëw rek génne cinq millions teg si ñab ni wér gis nga ko gis na ko sax la ilaha illa sëriñ Cheikh hmm? loolu sëriñ Cheikh du nit ah. moo tax sa jógin boobu am na fu mu dellu. wallaay hmm? wallaay. wallaay Guèye. du dëgg. dëgg la de. am na fu mu dellu wat ca watit la rek. waaw waaw. Hmm? wallaay wallaay wallaay. wat ca watit la. sëñ Cheikh nee na. maa jëkk a watu à la brosse. ci doomu sëriñ ab sëriñ ñemewu ko woon nel rek. waaw. maa jëkk sëqal sama bopp watu à la brosse. jëkk sol costume ba ma génnee nee na sëñ Babacar ni dabal leen ma ka mu yabal ni naa na na na ma dab pour mu ñëw summi li ma sol nee na mu topp ma waxuma dara ba yàgg mu wàññeeku ni ma ah bi ma ñëwee mu ne góor gi de moo la woon naa la dab pour nga summi si li sol waaye dama laa xool nga jekk lool ñi <laughs> ma mën ko nee na mu mu yebal sëriñu Alim Guèye ci man ni ko neel Cheikh na bàyyi watee fam yooyu muy watu te nay sol ci yére yu lii ñuy sol nii nee na bi ma jàngi siñalu gi ni ma ah, yu de am naa su yóbbante góor gi nee na sa wate fii daal ak sa kii nee na mën na ko ndax dafa araam mun ma déet man def maa yóbbante ne ma ne ko déet laajal ma ko ndax na man la ko nee dafa araam mu ma waa ji Cheikh man daf ma yóbbante rek wax naa la nee na ma ne ko yonent bi est-ce que daan na ma bañ ko xaañee rek la lañu la la ko wat ni ak keroog ca ca ca ca Xudaybiya Xudaybiya ah Xudaybiya ba ko ba saxaaba ya meree ci watu leen hmm. te te defaguñu la ñuy def ñépp keroog la ma sa digle moom bi kenn deful ñépp mer ndax sëñ Cheikh nee nañu ñàkk fayda ñoo jóge màkk ne ko mayuñu la ren nga dugg màkk hmm. te nee na ñee yàkkamtul lu dul dugg màkk pour mën a wane seen doole ñoo leen mën lu tax nga ñu duñu dugg mu ñaa ndigal lay xaar de bu jógee asamaan daal wax ma la mu wax dinaa ko def ñépp taxaw seen armal di xaar bàyyi ñu dugg màkk ndékkee leen mu ne ndigal laay xaar de te booba tàbbi màkk rekk des toog tuuti ba yàgg nee na Jibril indi la muy indi ne ah, watu leen te dindi seen armal te ñu dellu ba beneen yoon saxaaba yi bañ ñëpp bañ mm-hmm. benn yoon boobu la ma sa digle ñëpp bañ mm-hmm. ku ne yaa nga seet foo mer rek la mu fa wax ko sax mm-hmm. mu wax wuyuwuñ ko sax moom it mu bàyyi leen fa dem beru ci alayhi salaatu wassalaam dem ci tànt bañ ko tàntaloon bàyyi leen fa ak seen mer moom tamit jàpp njàmburam moom it soxnaam sunu yaay soxna Umu Salama moo ko fa fekk ñu ko sank bi mbaa du dangaa mere sa njaboot gi mhm. Mhm. dama gis yaa ngi leen bàyyi fa la ñëw fii beru waxatoog ñoom mu ni du caagin dama leen mere mhm. mais li leen nara topp ci lii ñu def moom moom laa xajoo sant naa leen ñu def te buñ jógul seen position ñoom ñépp la yàlla yi mbugal hmm. du ci na kenn waaw loolu moom moom laa xajoowul mu ne ko loo bëgg mu ne ko dama leen nit ñi wattu ñu bañ mu ne ko bañuñu yow rek lañu bëgg hmm. mu ne ko lu tax wattuwuñu mu ne ko sang bi kaay rek ma wat la hmm. bul wax dara sëggal ma wat la rek su ma la watee ba noppi génnal ñu xool la rek nga xool ndax bëgg nañ la am déet. d'accord ndeysaan mu jël boppam mu tedd ba jox Umu Salama. Mm-hmm. son Umu Salama wat ko nel. mu génn rek ñu xool ko nel ba ku ne utu ko la wat. Ah, ku ne wuti ku la wat yàlla ne waaw kay moo tax Serigne Cheikh dégg naa ko mu ne naa inna fataxnaa laka fatxan mubiinan nee na ku defal ni fatxu Makka la wàcce juum nga. Mm. nee na Xudaybiya la wàcce. wax lii ma dégg nee na mm-hmm. waaye du fat fatxu Makka moo taxu ko woon a jóg. ndax yàlla da doon wan yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ni ko tey nag moom defal naa la garantie bu mat sëkk parce que nattu naa la ndax bi nga ñëwee ba Xudaybiya tàbbi Makka des. Mm-hmm. sa doole nga naroon duggee. te ba ngay génn danga nga néew doole doole jooju nga naroon dugge nag ma bëggoon nga génn ko ci yow booy dugg man rek naa tax moo tax ma ne la dellul ba booy dellu si man rek ay tax nga nga nga nga dugg ma laay nee na nag man sëñ Aline Gueye yonent bi boobu la watu woon nel nee na ma wax góor gi nguur gi ni ma wool ma ko nee na ma ñëw mu ne ma waa Cheikh sëñ yi ngay sol lan la ma ne ko yii sur mesure la <laughs> luy sur mesure dañ koy natt ba mu yem ci man te yéen seen grand mbubb yii mbubb ceddo la ku ngeen bokkal sàppe xatal ko te man duma xatal kenn loolu sëñ Cheikh lu nit laa ilaha illallah du buubu ndax sur mesure la dañ ko natt ba mu yem ci man du du buubu fenn te duma xatal kenn ci sàppe nee na góor gi ne ma du caagin dafa aay moo tax ma la koy tere damay bañ demu safara ñu bari sababoo ci yow loolu rek laa ciy bañ parce que bëgguma ku la wax dara ci yi ngay sol hmm. kon nag sa jógin boobu hmm. <laughs> ah. dendaloo koog foofu rek waaw foofu la dëkk sax du dëgg waaw jeex na inna allaha la yanzuru ila suwarikum wallaay wa amwaalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa afaalikum kon col gi konte wul waay déedéet déedéet ah. déedéet mukk abadan <laughs> kon col gi konte wul hmm? li konte mooy xol bi hmm. yonent bi wax la ci xadis ni abgadul ibaadi ila llaahi man kaana sawbaahu xayran min amalihi xadis la de yonent bi nee na ki yàlla gën a sib ci jaam yi mooy ki nga xam ni ay yëree ma ko gën moo ko gën ay yëree ma ko gën ñu ne ko loolu ni mu ne mu ne an an mu ne mu ne mu ne siyaabuhu siyaabul ambiya lay doon bu rek nga ne ci yàlla Moussa la waaye wa amaluhu amalul jabbaar yi te bu jëfee rek nga ne ndax firaw naa fi ko wax mu ne kooku la yàlla gën a sib ci jaam yi kon kay la maam Abdou waxoon maam kër si qul ma tashaau bi man wahaabu moo la ko may min fadlihi lépp loo wax loola am nga ca dur قل ما تشاء وبي من وهب مولكم مي من فضله lépp loo wax loola am nga ca dur dafa tiim way ana jàmm قل ما تشاء bi man wahaabu moo la ko min fadlihi lépp loola am nga dur xalifata cheikhi wala muxtaariya fi di mbër si ay fajar dina ay daanam te ñepp la wax yaa cheikhana hmm. ku dul yow maa in lana غرض بما لديه نفب يو يادن كنو فر خليفة شيخ والمختار يا في دمبر سياي فجال لنا أيدانم تنين بلور يو رك يا woote fii ba ñépp a jof si fi yow ak seeni koom ya fa ñoom te sàkku woo ku la ger muxtaari yaa fi di mbër si ay fajal dina ay daanam te ñepp te boole ci di wax cheikh si xi xanaa ni tekk dal dëddu lépp ngir bañ lu yàqu sa ngor Cheikhi wal Muxtaariya fi di mbër si ay fajar dina ay daanam te ñépp in jaakum mubridun qawmi di leen ayibal mm. bu leen ko faale ni leen mii xam ni day wutu tur si ay fajar dina ay daanam waaye yow si ngistaloo damu nekkoo di wut ku la naw xanaa taxaw tem tey digle ka def li la war fi dimbal si ay fajal dina ay kon nag yëf yaa ngoog Chérif alxaaji Idris feddelul ñu sunu cofeel ak sunu ziyaara ci Cerno Mouhamadul Bachir incha allahu allah góor gu tedd gu baax googu yow jërëjëf xaaji Idris ku baax la xaaji Idris kenn gënu la taxawee ba jël micro bay àddu hmm. du yow yaa mais xool bay wax hmm, hmm, xool bay wax yal na yàlla nangul ñu yëpp may ñu ñu teewee ko at yu bari amiin te at mu ci nar a ñaaw na dàq ba ñu jàll ci dara jont bi aleyhi salaatu wasalaam at nar a ñaaw na dàq ba ñu jàll amiin sama waajur daf ma daan wax ni na nga def très attention ndax yàlla bëggu luy bëgg luy antu ma ko luy antu hmm. mu ne ma defantu ñaanantu waxantu hmm. antu yaa nga yàlla bëggu ci dara hmm, wax na dëgg de waaw defantu waxantu ñaanantu yàlla bëggu ca dara mu ne ma ba tax na boo ko dee ñaan moom yàlla jox ko gëddëm ma ne ko nu ma koy joxe gëddëm mu ne ma danga koy ñaan lu kenn amul ñaan ko lu kenn mënul ñaan ko lu kenn sañul mu xam ne jox nga ko gëddam mm-hmm. waaye bul ñaanantu mm-hmm. waaw ñaanan da koy ñaan lu kenn amul ñaan ko lu kenn sañul mm. ñaan ko lu kenn mënul mu xam ne jox nga ko gëddëm hmm? ah waaw ah waaw su ko defee noonu yàlla daan na ma waxit ni na nga def très attention booy ñaan yàlla mm-hmm. mu ne booy ñaan yàlla fekke déwén mm. yàlla na fekk nga am ngorgoo goo muñe yi ngay taseel coon yi ba déwén <laughs> ah, wallahi dëgg la de ndax bari na lu la metti ren nga dar koo jàmbat di ko jooy te dara war lu ko dul fekke gi te yaay ñoom ñaan yàlla fekke déwén dëgg la de wallahi dëgg la dëgg la de ah. kon nag gor hmm. du jeex na moom it daan daan wax ne jàmba jàmbaar joo gis njàmbatu ko mën hmm. jàmbaar joo gis hmm. jàmbatu ko mën kon nag yal nañu yàlla nangul amiin amiin yal nañu ko yàgg fekke amiin amiin jaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wa salaam yal yàlla boole ci jaamam ya mu safool boppam amiin yàlla boole ci jaamam ya nga xam ne ci jaamam yaa nga xam ne mm-hmm. xam nga lu tax mu bind leen jaam mm-hmm. yooyu may wax te yàlla nañu ca bokk mm-hmm. xam nga lu tax mu bind leen pour bu naree mer bu leen xoolee rek bég yal na nu yàlla boole ca ñooñu bi jaay sidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon nag ñu julli gee est-ce que mu jiite waat ni ni ñu jiite woon timis barakallah insha allah ndax comme xadara bi moom moo ko moom daa iman waaye bii nag xassa <laughs> waaw bii nag xassa la kon nag ah, jiite ñu yaakaar naa ñëpp bëgg nañ waaw